na ci man moo ma jàkkee bay ànd ak a bañ déedéet yow dama lay laaj ànd nga ci ñu tëj sa néeg ànd nga ñu tëj sa kër fan yi amul ku ma ñu ma famille yu ma dégg ñu génne leen amul ñu ci commentaire wéy dañ leen waroon yërëm waruñ def lii waruñ def lii waaw nit ñu génne ko par exemple fa mu luwee woon nit ñëpp taxaw ne non non non nga ne ci kër ñu tëj kër ga génne la ndax fayo ñu ne mais waa ji mënoon na ko bàyyi mu dëkk fi jarul mu koy tëj yow ku tëj sa néeg neexu la nga tëj néegu yàlla pour la jàkka jarul tëj nañu organiser duggin bi tëj baatu tëj loo moom nga koy def entreprise yi ñu tëj seeni borom bégguñu gënalu leen dañoo dem ba mënatuñoo dem ñu tëj ko am déet fi kër gi nga nekkoon ñu génne la tëj la gënalu la da ngaa mënatu la fay yàlla tëlewul nañ tijji jàkka yi jumaa yi tijji ko laa wax buñ paree nag ñu doog a xool nag ne eh da di julli ñu ne waaw ñu ne non non jullee leen nii parce que feebar bi nangam nangam ñu ne la booy dem defal sa masque am déet ñu sotti la seen liquide bi sel bi nga raxasu soo demee ñu ne la dàndante leen. sàppe bi nañ kii fii kii fii kii fii kii fii jeex nañu organiser ko suñ ñu julli dem suñ yoon ñaan jàng nga alxuraan ñaan sunu borom gis nga kaay moo wax la sécurité bu sa kër am bu ca jàkk-jàkkoo pour foofu nañ waxante dëgg sa kër mën am sécurité jàkk amul sécurité loolu waxi caaxaan la yow itam këru Iran am sécurité samay doom ne fa seen xel dal ñu ne bu ma demee jàkk xel du dal mu gawuma ko mënu ma koo nangu. oustaz doguma la am na yeneen ndaje yu ñu fiy def yoo xam ne ay dañuy daje ñoom seen biir kër dandante maanaam ci musique par exemple. saawun bi bu jarul nëbbu saawun bi dañuy riij maa la ko seen concert ci biir kër oh, oh, oh waaye yow dama ne ak yeneen sax am na yow yëgul sax xëy na yooyu ngeen di gis mais am na yeneen am na kalaando yi ci kër yi nag góor ñee rang jigéen ñi yaa ngi ci biir kër fii li fii ne kenn du ko wax mais solo amu ko. xam nga ñun lu ñu itteel mooy néegu yàlla yi ñun lee itteelunu ñun li ñu itteel mooy nit ñu ubbil suñuy jàkk ubbil ñu suñuy jumaa ba pare nag bàyyi nit ñu condition yi duggee leen ko ku leen sangul sa taar la bëgg feebar bi wuurul ni muy dikkee moo garaaw organiser leen ñu bañ suñu bopp ñu organise parce que assemblée député yi ñooy organiser conseil des ministre ministères yi la la la engagé mais jàkk yi ñun nañ ñu ko bàyyee ah du dëgg saawun ba am na ñu ko yor artistes yi ku ne am na aar boo yor te ñu ngi leen bàyyi ñu doxal seen wàll kon nañ ñu marché baa ngi dox yenn boutique yi ne ci réew mi ñu ngi dox jën jëndukaay mburu yi mu ngi dox ñëpp a nga fa daje mais lu tax mënuñu mënuñu accepter jàkk man moom a jaaxal sama problème la lu tax mënuñu accepter ñu ubbi jumaa organiser julli ni gannaaw ñoom nee nañ nañ takkalee d' accord nañ parce que docteur kenn du uuteeg moom diwoo sel bi d' accord docteur kenn du uuteeg moom dandante leen d' accord nañ docteur kenn du uuteeg moom nit ku ne da nga koy bàyyeeg wàllam ñoom looluy seen doom mais jàkk yi nañ ko bàyyeeg sëriñ si ne oustaz ñi élimaan yi élimaan yi nga xam ne d'accorduñ ci ñu tëj néegi yàlla yi laa waxuma ñi ci d'accord. loolu la bëggoon sama nekkoon sama question sax parce que dafa am ñoo xam ne dañuy layal tëj. dañuy lay tëj di joxe ay ay. waaye yow teguñ ko fenn xoolal eh, gis nga danaa la wax leen danañ ko tijji ci nii baa ci naa lu xanaa tëj du jëm abadan foofu laa ko teg xanaa duñ ko tëj ba abadal abidina danañ ko tijji ci nii baa ñu tijji ko ci naa rek. moom fu mu jaar ubbeeku te bari na looy sumb te boo xamoon ni fii lay mujj doo ci ànd ñoom fa ñu foogoon ne fa yem romb na ko c'est ça problème fa ñu foogoon fale yem romb na ko alors ko kon nañ ko tijj ti organise ko takk masque yi raxasu dàndante ti julli pare jàng alxuraan ñaan yàlla tasaaroo. jërëjëf oustaz looy tàggatoo ak suñ bopp. sant yàlla rek ak euh, ñaan Sénégal yi yëpp ku yàlla may wërsëg koñ ba nga ne ti nga tane leen sàkkal ca la nga am jënd ca dund dimbali leen président def na taxaw na ak peuple bi mais benn loxo du tàccu te am na loo xam ne mënta mëtale Sénégal yi yëpp kon nag yow boo nekkee ci boor bële keneen ne ca boor bële keneen ne ca boor bële kenn ku ne la nga am nga sédd nga partagé ko say dëkkandoo am naa yaakaar ne coono dana wàññeeku kon man loolu rek laa ci wax ñu partagé wante ak li ñu yàlla may ci wërsëg ku ne partagé ka nga tane ci la yàlla jox bu ko defee ñëpp nekk ci jàmm loolu daal lay dénkaane ñaan ñu ànd ak dal ànd ak sago xam ne feebar bi ku yàlla tuddul ne dana la dal du la dal ku mu tudd ne dana la dal mënulaa mooy parce que yàlla yor programme am te wa ma tashauna illa an yasha allah rabbul alamina dara du leen neex ndax amu leen neex neex maa am neex neex man li ma neex mooy am yéen li leen neex du am kon nañu dellu ci yàlla waaw gërëm nag médecin yi gërëm surtout nag policiers yi gendarme yi ak militaire gërëm sapeur pompier man doxkat laa duma ma noppalu quatre heures du matin trois du matin bu heure boo génn ñu ngi ci àll bi tant que six heures jotul duñ fa jóg vigilant lool ci ndigal li leen président jox ak it ñu bëgg aar peuple bi donc ñu ngi sonn boobu coono nag dañuy ñaan yàlla dimbale ñu feebar bi jógee fi kenn ku ci ne delluwaat ci sa activité waaye daal ak lu mën a am nañ ubbi jàkkee ak jumaa yi ci la yaakaar ji ëppee même bu dul feebar bi yeneen affaire a ci suñu kanam te mooy coow réew mi amoon na coow coowu politique fii coowu rey fii coow accident fii corona bee tax lépp kenn waxatu ko xam nga yonent yàlla corona dafa garaaw moom bi mu ñëwee lu yàlla tere woon te defuñu ko bi mu ko teree gars yi banañ ko lu yàlla digle woon ñu lànk bi mu ko diglee def nañ ko li gisatuma sax waxatuma sax noyoo gars yi waxuma góor ak jigéen góor ak góor sax léegi nangootuñu noyoo waaw xam nga yàlla danoon jigéen nañ muur waxatuma muur waaye léegi sax dañu cee boole bii nga xam ne fii rek kay feeñ wax na ñu ngi def ndigalu yàlla jigéen ñi seeni i jëkkër a leen di gis doom yi seeni i waajur a leen di gis yaay yaa ngi teel a ñibbi waaye taxi lañ daan ne di taxawaal ci dëkk ba heure bu leen neex ñibbi si corona daal rek la kar na gaa yi delloo leen ci kër yi donc am na njàngat mu bari mu ci ne boo xam ne ñun li ñu lànkoon def yàlla defloo nañu ko kon miracle mooy régler ku kuy tërërëri waaw kuy tërërëri miracle moo lay régler yàlla nañu yàlla dolli jàmm toxal ko ci àdduna bi yëpp feebar yi mu fi fekk yàlla balewaale yëpp di dolli réew mi naataange asalaamaaleykum wa rahmatullah